tey awma lu fi kon tamit sport saa yu ne lamb Sénégal mi ngi rek ci lamb gën a sokkeeku ci la gën a nekk di ñu mel nii kenn xalaatu ko woon nañ ko fonk suñ culture la parce que sa culture dëkk mooy gëm sa dëkk Bombardier ngi noonu la grand champion ah borom guddi guddi mbuur nee leen tey bu ñu ko gisee duñ ne guleet ndax ku ne xam na ne daaw jéeg ñëw na yëngal kon bu tey daa delloo nda mbattu la champion maa ngi lay nuyu di la ziar. bu rafet maa ngi lay fay di la ziar bu baax mbaa lépp jàmm. maa ngi sant bu baax ndax nga gisee tey euh, organisation bi euh, daaw jéeg yéen a waa Mbour ren ñun ñoo recevoir ñun waa Kaolack bi nga dugg see nag sa yaram dafa tàng mu mel da ngaa namm làmb nga daw wiiri tuus xam nga yaa ma gën a xam dafiy fu mbër. waaw damaa namm làmb rek wax dëgg yàlla parce que instant bi xam nga booy entraîné di yëg sa bopp boo ñëwee si làmb gis public bi xam nga sa xol day sa xol day sedd sa yaram day tàng. aussi bi ma ñëwee gis organisation bi ak Kaolack ni ñu accueillir ñëpp jóg tàccu wane ni ñii dañ laa bëgg waaw loolu boo ko defee sportif day kontaan quoi donc ñuy félicité bu baax Bira Sène parce que si mandam bi mooy première fois tey drapeau chef de l'État kon tey mbëri yëpp war a ñëw jëmmal ko man personnellement recevoir na ma waxtaan ma ne ko man dinaa ñëw ak ñëpp ñi nga xamante ni samay morom lañu dinaa leen woo ñëw jëmmal donc yàlla def na ko ah, am na réussite public bi ñëw nañu mbëri bëri nañu et que le meilleur man na Thiès laa bëggoon mu gagné parce que Thiès laa dëkk mais Diourbel moo ko gagné ñu leen di félicité bu baax. nan nga gisee combat bi ginnaaw bi nga toogee di ngi ko doon xool wala ñu doon fecc mais seetaan naa ñetti combat mais vraiment ñoom ñëpp mën la bëre xam nga fii moom euh, comme cinq combat lay doon man nga gagné trois yi ñaari des gagné te du jëriñ dara. donc ñoom ñu leen félicité bu baax combat yi neex la. final bi xooloo ko diggante Libidor Boy Faye. non jotuma koo xool ba tombé ñu doon ah, ñu doon fecc mais dégg naa Boy Faye moo daan ñu koy félicité bu baax. tey Bombardier bu waxee euh, gaa yëpp bég gaa yëpp respecté la ndax si sa wax sa communication tey boo amee looy gën a ñaax axlu làmb lan nga leen di ñaax. d' abord làmb nit ñi bala ñu la respecté da nga respecté sa bopp boo respecté sa bopp jox nit ñi respect respect boobu moom lañ lay delloo yàgg naa ko wax mbër du affaire mbër du affaire yenn af mbër noble la donc booy boo nekkee mbër yaa war a jox nit ñi cër jox sa bopp cër d'abord foo dem dañ lay respecté mais boo nee mbër laa rek considère sa comme dof di def lu la neex nit ñi duñu respecté mais boo xoolee image bi ñoon jox lamb ak léegi vraiment nga xam ne léegi lamb avancé na quoi. Bombardier fan la toll ci préparation combat moo Balla Gaye maa ngi si bu baax a baax ak samay mbokk. deux zéro deux indi wala lan ngay indi. mais loolu dafa leer deux zéro yu wóor si kàttanu yàlla incha allah. foo ko teg. si bëree si xeex si lépp. mu mel ni fa ba tey ne da ngaa jàpp ne foofu la Balla nekkaat ba tey Balla gis nañ ne dem na INSEP tey mu ngi yokk cere doole ñeex ñu gis yaa ngi def ay vidéo di danse comme quoi que rien n'était lan nga ñu mën a wax lan la. non INSEP man xeebu ma leen waxuma li ñuy def baaxul moom foofu la mu yaakaar dem. man bokk naa si mbër njëkk a génn à l'extérieur préparé kon euh, dem génn préparé aw ma benn lu ma si lu ma ci wax foofu la mu yaakaar dem na fa préparé man fi ma mu yaakaar foofu laay préparé donc li ma la waxoon rek combat amatuma si stress amatuma si pression. guddi guddi guddi guddi Mbour 2-0 yi wóor incha allah. lan nga sa en masse mobiliser wu ñëw topp sa. ce que Bal non liiru Diane moom day comédie man waxam ay ree la may def ay def sax parce que aw ma lu may wax ak moom parce que suñu waa ma am contrat moom day comédie rek ay waxam garaawul quoi si day comédie moo tax moo tax du ma si wax. <laughs> ñaata avance nga non bu dee Sénégal benn laa fi yor pour l'instant mais am naa ñetti avance su MMA waaw. Ah. Ah, kon baax na MMA bi kañ la boo bëree Sénégal bare wala bee mu ngi ci. waaw ko waroon di ko bëggoon def mois de juillet mais comme day jege ak bii ma ne koy bu mois d'août su ma bëreeg Balla Gaye Faye damay continuer waat sama yeneen combat yi. merci beaucoup. merci Paul jaajëf. Gandia maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar soxna si. félicitations. merci beaucoup. Gandia nga ñëw nekk xale public bi yëpp topp la boo ambiancé mu neex boo feccee mu neex boo bëree mu neex sëkkale Gandia Fama la. waaw gom sama bopp rek gom sama bopp waaw ak suñu waa dëkk yaakaar ma rawat na waa Betende may nuyuwaale waa ñombaar bu baax a baax aw ma sen fay. gis naa seen taxawaay di nuyu suñu ñaari association yu mag yi nekk Betani muy Bantambaax ak ADEM ma leen di bu baax sama waa Fams Club ma leen di bëggee bu baax a baax fu ma si àdduna ñu ngi may topp wóor na la rawat nañu nekk si diaspora bi bilaay. Gandia c'est la première fois nga ñëw représenté drapeau chef de l'état wala yàgg nga la première fois may représenté wu drapeau chef de l'état waaw. naka ngeen koy dundee a conditions yi ça va. oui sant maa ngi sant suñu borom yow ñan nga représenté Diourbel. waaw waa Diourbel laa représenté wu. waaw fan ngeen dal. Ah, ñoo fi Aslem Sarr fii nii waa foofu baax baax na moom waaw. naka nga gisee tey ambiance bi bés bi Kaolack woote mu fees dellu tey. lamb di ngeen di gën a kontaan ndax affaire bi gars yi ñu ngi dund lamb dëggantaan. waaw man bi ma commencé bëre ba léegi musuma seetaan drapeau chef de l'État xanaa télé mais li ma gis Kaolack moom musuma kaa gis fenn wax dëgg fa yàlla waaw. lan ngay gën a ñaax gaa yi. dégg ma. lan gën a ñaax gaa yi lay topp ak ñi lay jàpp. waaw di leen ziar bu baax rek di ñaan yalla yàlla moo leen mën a fay man mun ma leen fay yàlla na leen yàlla fay. gaañ gaañ am na combat arène mos nga bëri. non mosoo ma bëri arène nag. bëgg nga ko. waaw bëgg naa ko kay. promoteur ñu ngi lay wax. non pour le moment moom maam lees waxaguma dara ah. waaw maam lees suñ président eh, suñu entraîneur bi waaw parcelle écrit parcelle mbooloo laa nekk waaw. tey gaañ bu doon génn premier sortem kan la bëgg a kan man non man mboru Dakar yi miinu ma leen nag wax dëgg fa man si boro simple bi laa basé wu mais instant bi moom képp ku bëgg a bëri mag ak man moom pare naa. mais dañuy ne bëre simple ak arène am na différence. no pour man amul benn différence moom wax dëgg fa yàlla. xeex bi mooy différence bi xeex. no xeex bi moom mooy loolu. gars yi dañ koy wax noonu rek mais pour man xeex bi moom amu si benn importance. yow bu xeex jooree da bañ a xeex. nañ ma nañ ma tegal combat. am na garde. waaw am naa gaal waaw. am nga gaal. waaw am naa gaal su may bëre ji gaal bi may yóbbu waaw. am nga garde garde sa garde ba sa garde ba. ah ndax am naa garde. waaw na ngeen ma nel promoteur ñu tegal ma combat rek si lay leer. buñ pare pare. pare naa. dinañ la woo. incha allah am problème. merci beaucoup merci à toi aussi.